salaamaaleykum mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli seen sala salaam ñu ngi nuyu ñëpp di ñaan yàlla dool dal dool jàmm si réew mi ñu ngi nuyu njiitu kër gi di ko ñaan ñaanu njabootam di nuyu Sénégal yi maa ngi nuyu personnel bi aussi ñoo xam ñoo liggéey si kër gi di nuyu vraiment suma xarit Cheikh Mbacke Ndiaye Cheikh Thiaw ñu ngi koy ziar ak soxnaam Amine Fregay yi di nuyu soxna yi di nuyu waa Xombal yëpp ñu ngi nuyu aussi ñuy rafetlu émission seen wér-gu-yaram maa ngi nuyu le commissaire Demba Sarr ak le procureur Alioune Ndao tey dañu ñëw si les fibromes hmm? ñu leen tuddee des tumeurs bénignes tumeur bénigne nag mooy boo nee tumeur rek dañ koy xalaat cancer mais bu nee bénigne mooy sore naa cancer du feebar bon fibrome nag mosul du mën du moom daal vraiment du nekk du cancérisé maanaam du doo am fibrome ba mujj soppaliku cancer kon jarul tiit si léegi am na yenn ñu koy ragal des mais fibrome mënul soppi ko ba nekk cancer loolu baax na suñu ñu koy leeral si émission yi suux la nag buy farmew rek si biiru ku jigéen ki hmm? te lii seen mandarga leen leen ràññeel dañuy développé en groupe du nekk benn ra néew na lu muy nekk benn souvent dañuy mel ni kuy jur boo amee benn bis yàgg na ngeen mu nekk ñaar bis mu nekk ñett day day progressé bien que seen màgg nag gaawul da siy dimbali nii mooy seen màgg gaawul yëpp na jigéen ñi nga xam ni souvent ah, dañuy toog lu yàgg duñu sëy wala ñu yéex am borom kër loolu yëpp na leen ndax moom day daal ñëw jël place doom ji nekk la lu doy waar nag loo xam ne daanaka ñaari jigéen ñoo jël rek kenn ki am na chance pour am ko si si dundam. au delà de 40 ans nag wax tam ñeent fukki at moom foofu la développement bi gën a gën gën a gaawe mais soo demee ménopause généralement day wàññeeku boo nee ba gisatuloo règle day wàññeeku ndax sa taux oestrogène ak yooyu day wàññeeku te oestrogène yooyu moom la ñuy tuddee pour màgg kon ki amul ménopause ki demul ménopause ki taxawagul daal mooy xaw a ki dem ba taxaw moom mën na bañ a amati problème ñu xàmmee si ñetti xeet nag mooy sous-muqueux bi nga xam moo nekk si biir pousse-muqueux si biir utérus bi am interstitiel bi lalu si kaw am aussi intramural wala interstitiel nga xam ne moom mooy nekk si kaw muscle bi nga xam ne mën na déformer même sa muscle terrain bi ñett yooyu lañ si gën a gën a ràññeet gën a ràññeet la jigéen ji ko am nag Euh, ñu bari sax leen koy wan mooy dañuy sëy duñ mën a am doom ñu def écho wala léegi seen règle bari ndax bari na lu muy yokk règle jigéen muy pot mi buy pot day gis der du bëree bëree bëri loolu daf koy def te léeg-léeg règle yooyu muy póot moom day dem ba juróom-ñaar ba juróom-ñetti fan léeg-léeg mu dem sax ba jiyee fukki fan lu ko ëpp loolu fii moom daf koy faral di di def bokk na sax liñ koy ràññee léegi kis yi ndax kis yi bari lu ñu indi ay saignement yu mel noonu mais fii moom daf koy joxe loolu jar na bàyyi xel ba vente bi di faral di metti naq bi di diis aussi léeg-léeg mu indi seere léeg-léeg mu indi saw mu bari ndax léeg-léeg dafay tegu si kaw poftan bi wala mu tegu si kaw butit euh, bi yor cabinet yi bu ko defee dafay indi seere kon su commencé rëy rek mën na di seere ak ballonnement yooyu ñu jigéen ñi am léeg-léeg hmm? ñu bàyyi si xel dinañ indi anémie aussi ba am na ñoo xam ne bu ñu amee film deret joo ñuy génne lu bari bu ñuy gis règle day tax dañuy mujj manqué deret ba dañuy anémie moo tax benn bopp bi métti leen yàpp moo tax léeg bu ñuy gis règle docteur leen digal ñu jël ay fer wala ñu sañ seen lekk pour mën a fortifier seen organisme day indi coono aussi muy fatigue hmm, ak urine fréquente maanaam quoi day saw tawtu safaat saw daf koy faral di joxe yooyu mooy màndarga yi nga xam ne daal ban lu ko firum di jur liñ ko gën a ragale nag mooy dafay teye jigéen am doom ndax bu baree ñaar mën na am du la bàyyi ëmb am ndax day léeg-léeg mën naa lawlu si bu suñu dukaat yëpp léeg-léeg mën na bàyyi ëmb am mu indi fausse couche ndax film li ko li ko doy waar mooy boo ko amee soo ëmbee bu doom ji euh, jël volume maanaam ëmb bi jël volume nu mu tuddati film bi day yokk aussi bu gënee am doole rek dafa indi fausse couche day indi avortement day tax loolu loolu dañ kon loolu moom lañ si xaw a xaw a ra ragal euh, américains nag xaw nañu ragal ni ñoom dañuy capter les cellules des oestrogènes moo tax ki am film yooyu ñuy bañ muy def yenn forme de planification yi mel ni ay pilule ak yooyu ndax yooyu dafay yokku dayoo film bi loolu jar na bàyyi bàyyi xel bu baax a baax a baax hmm? dañ koy doon nag ndax am na mutation bu am entre le chromosome 12 hmm, ak 14 hmm, les bras des chromosomes 12 ak 14 wala mu nekk aussi euh, perte du bras du chromosome 7 loolu bokk na si koy yu koy yu koy sabab kon dañ koy donn lu sëpp wala mu nekk un une cause hormo hormonale wala nga nekk am ku am yaram aussi bari graisse danay favoriser seen seen seen ñëw kon loolu mat na bàyyi bàyyi xel bu baax ah. te boo amee borom kër ngay fayal di sëy mais xam nga toog weer benn yoon nga sa borom wala la nga toog at benn yoon loolu si danay favoriser xeetu firoom yi di ñëw euh, li leen di jox na comme tegtal li ñu tegtal ñaari garab yu si baax benn bi ngi gis lañ koy wax beneen bi mbépp boo amee xasum gi gis ak xasum mbépp bu ne nga am si ñett baxal ko si liir ndox di ko naan par genwal kaas boo ndékkee boo añee boo non seulement mën na wàññi seen taay bu dee rëyul trop mais mën na wàññi aussi deret boobu ngay gis booy gis rek ndax fibrome moom bu dee yu ndaw yi mën na neex a faj mais bu xasee mat 5 cm li sëb opération rek dootul neexatee faj loolu la wutee ak kist kist moom lu mu rëy rëy rëy faj ne ay kist yoo xam ne ay 80 mm la woon parce que 8 cm barki démb jigéen ji ma mujj a traité kist demoon na ba kistam nekk presque 10 cm, 100 et quelques millimètres mais ginnaaw yàlla après 3 mois njëkk ba moitié bi ko de moitié kon nga xam ni kis lu mu rëy rëy mën nañ bu xasee centimètres intervention am si opération du a du mën a question yi ni ñu indi tey euh, ku njëkk kii moom daal euh, day laaj pour homme maanaam loo dina ba a am si wàllu sëyam si am na si lekk yi am na si garab yi lu mel ni yoxoos ak sox soxoor boo ko day jël ngoon gi baax na limon ak nen bu jorul baax na limon ak lem baax na jinjar ak lem aussi baax na perse bi baax na ngun-ngun ak naanaa mante aussi baax na yooyu yëpp boo seet infusion di ko jël si kàttanu yàlla dana la dimbali à long terme nga mën a am li nga li nga bëgg ñaareel question bi ci neen daal dafa am jabet di su laaj ay tegtal pour wàcc suukaram jabet nag du wér ñu leeral ko ñëpp du wér euh, ngooñ mi nag dama noon duma ko joxe ndax xam naa ne fi ne bu ñu ko xasee joxe xale yi dootuñu ci jotati waaye nag comme garab la il ñu tudd ko ngooñum gerte mi ñu jox xar yi dana gën ko aw si wàcc suukar tibbal sa loxo ba mu fees nga baxal ko si litre ndox juróomi min nga seggati ko naan par genn wàllu kaas boo ndékkee boo aña boo mais ñaan yàlla ñuy ñaan daal ñi nga xam ne mooy ñiy jaay ngooñ mi ñëw vraiment oyofal seen loxo ndax duñ ne ngooñ day wàcc suukar tax vraiment ñu bëgg laxas jaan si affaire yi nit ñi dem di ko xëccoo jéeg vraiment jur gi aussi dana xaw doy waar hmm? mais da koy wàcc da koy wàcc suukar boo amee laurier aussi dara gënu ko juróom-ñaari xob ngay baxal si litre ndox juróomi minute nga segg ko di ko naan par genn wàllu kaas boo ndekkee boo añu bore soo ko defee si kàttanu yàlla te suivre régime bi jabet la la meilleure méthode pour réguler sa jabet mooy régime wàññi li ñam yi am sukar yépp muy ceeb bi mburu mi bàyyi suukar bi complètement bàyyi boisson ak yenn am sukar boo ko defee si kàttanu yàlla daal yàlla mën leen dimbali booy jël nag lu mel ni mburu na nekk le pain complet parce que pain complet mën nga si lekk sax lu ëpp li si wax te du wàññi dara du leen le mille complet loolu baax na mën nga koy jël si quantité bopp bi nga daan jël ñu leen tàggu fii leen jox rendez vous émission gërëm jërëjëf